si conseil constitutionnel daf ne xam nañ ne mënuñu def élection ci mois de eh, mënuñ ko def ci le cinq waaye waxul ne ci date prévue la wax waaye delloo na ko administration su ko delloo administration ne leen dans les meilleurs délais dégg naa ñuy wax nag ne dama wax bref délai bref délai du langage du langage correct entre deux administrations meilleur délai la leen wax kon meilleur délai sénégalais moo waroon a wane efficacité am pour wane ne le 25 man ci ñu ne le 25 élection dana am ñun candidat yi nga xam ne nii dañoo waroon a campagne yi danañ ñu pénaliser pénaliser boobu ñu xool nan lañ koy compenser ci temps d'antenne bi organiser ay débat entre les candidats mu ba a nekk 3 minutes 2 minutes 3 minutes mu nekk débat boo xam ne dañ leen di jox une heure de temps kenn ku ne. présenter sa sa sa sa programme ay journaliste ak société civile ak nit ñu xarañ décortiquer ko bu paree wax ak population bi loolu moo gën fuuf di pousser élection yi parce que loolu bu ñu ko xasee def rek keneen mën na ci jaaraat ëllëg. président sa benn naataango candidat nekk foofee ca diwaanu prison am loo xam ne yaa ngi koy euh, mais dañ ko war a bàyyi ndegam bàyyi nañ ñu gën a diisoon ci liñ leen taxal. dañ ko war a bàyyi bàyyi bi mooy doomu aadama nga wane ko mu wane capacité am parce que tey Bassirou Diomaye Faye d'accord naa li nit ñi di wax Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Diomaye loolu comme neex nga wax ko ndax yàlla day wax tax maag yoonante bi benn lañ ko kenn ko ne wax mais li gënoon a rafet mooy ñu bàyyi ko mu gën campagne wane capacité am wane li mu mën a def parce que ah, loolu laa yaakaar loolu te loolu yaakaar naa fu ñu jaar def ko ñu bàyyi ay prisonniers ba pare téye leen ci biir te bàyyi bi mooy mooy li gën te yaakaar naa autorité yi danañ ko def wala sénégalais yëpp taxaw pour ñu bàyyi ko loolu moom lu am solo